dimanche bi sénégalais yi dinañu génn dem voter ñu war a tànn cinquième président de la république ci ñun gëm sa bopp liggéey nañu liggéey bu mucc ayib fépp fu nekk goxaan ci Sénégal teg nañu fa suñu tànk yéene Bougane ak waa gëm sa bopp ci lu ñu sopparñe Sénégal defar ko mësta nekk dug ci benn Sénégalais loolu moo tax bi ñu ñu génnee ci élection yi ñu jàpp ne Sénégal moo nekk ci suñu kaw ay ambition lu yàq Sénégal du ñu ci bokk mais xam leen ne dañu amorcé tournant bu décisif fi ñu jëm c'est historique bu ñu nangu kenn yàq suñu réew bu ñu nangu kenn saraxe Sénégal bu ñu nangu kenn sax-saxe Sénégal réew mi ñun ñoo ko war a defar bu defar waree am ñun sénégalais yi ñoo koy defaral suñu bopp je voudrais d'abord attirer votre attention que am na coow lu bari ak lu ñuy rumandaat lu nekk ci suuf ñi yëngu ci wàllu pétrole diviser nañu camp politique bi ñaari camp ñoo xam ne dañu ànd ak waa Qatar ak les Russes ak ñi nga xam ne dañu ànd ak les anglais les francais et les américains dara waralu ko lu mooy suñu gaz bi ma ne dina attirer seen attention pour que kenn ku nekk ci yéen surtout les militants de gëm sa bopp ngeen jël seen responsabilité man Bougane élection dimanche yi nga xam ne fa la ñu jëm maa ngi libéré bépp militant bu gëm sa bopp fu waay nekk fu la neex candidat bi gën bi gën a dal sa xel demal nga voter ko suñu taxawaay nag ci opposition suñu taxawaay ci xeex li fi nekk mësta soppiku bu ñu demee deuxième tour incha allah danañu gën a dajewaat xool kan moo gën ci programme yi ñu am ak kan moo gën ci Sénégal jërë ngeen jëf